suñu mbokk internet Benno Bok Yakar Tabuna E ay Ti ci élection yi ñu jëm Dakar monsieur Amadou Golf Sud monsieur Lat Diop Mouche Momarba Mbake Ba Galoba monsieur Mouche medina Mbour Cheikh Issa département bu Mbour Malikunda, Samb Malikunda Mouche Djourbel Dame Saint-Louis monsieur Mansour Faye madame Maria Massar Wakam Victor Sadio Diouf Dakar Plateau Mouche Alindoy, Padoua, Bang de Job, Diop Linguère Diouf et enfin Sangalkam Mouche Omar Gueye restez en alerte tenez top nous sur ci réseaux sociaux